Abdoulaye uh, Diop jërë ngeen jëf internet yek uh, auditeur yi jërëjëf seigne Maysa ah ñu ngi leen di bu baax bienvenue encore une fois sen journal des faits divers and ci ak gañ ak Ndiaye ah, ñu ngi leen di bu baax baax Ndiaye no def. ma ngi sante yalla bu baax baax ababakar ma ngi lay nuyu nuyu Malal Junior djagne sante ko gërem ko nuyu na Abdoulaye Diop ak uh, Maysa ñom ci le muñal ak tontuwaar bi ñu fiy nekk mm-hmm. dañ dox Abdoulaye Diop bal Diop baat bi jaaxaloon ma. Ah, bal wa moy ku wërul maa ngi soog a xam. Yobal Diop mooy ku wér. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Hmm, eh, nuyu naa waa Ngaabu. Ah. Hmm. waaw ñoom dama leen di nuyu moom. Hmm. ndax su ma nuyoo waa réew mi ba pare. nuyu waa Ngaabu. am na solo. Diagne. Tarkal. maa ngi leen di. Diagne lu tax heure balaa ngay yéeg dañ laa woo. non non xam ah, nga nag man Ababacar fajar lay xëy. jaajëf tax nga bëgg ku la jàpp defal ndànk di la neexal di la nabb nabbee déet déet Mamadou euh, Mamadou. Hmm. waxal Aba man su ma yeewoo six du matin. Hmm. def RFM matin def journal huit heures. Hmm. damay ndekki sama bureau. te sama ndekki bi faratale si man ndekki man su may ndekki kenn du ma pamti pamti damay jël sama temps. alhamdulilah yow de sa ndéego ba suur. yow de sa ndekki amul benn biir wi. tey tay, tay, tay, dama ndekki ba yëg ndekki na. lan nga ndawal. yàpp saaf. lii de mosut am ci kër gi. indi sama yàpp saaf sama bureau taal sama micro woon tëj sama bureau. parce que faa yaa ci kër gi ay dama loon damay sàcc. te jaañ oo oh, ku la filmé. déedéet. doo wër ci kër yi di ko wane. mbaa mbay Fall. benn beñ taal sama micro onde. maa gis kuy ndekkee fi benn beñ. waaw ak moitié kaasu mi maanaam gis nga meew. sa sa meew sa sa meew juróomi dërëm xaaj ko démb. waaw xaaj bi des tay waaw. toq kafe ak ñaari bekk suukar. waaw di wër naan gaañ maa ngi lekk sama xaalis. non non non <laughs> gis naa ko moom. gis naa ndéebu sama yàpp saaf bu saf. gis naa ko ci kër gi. laal sama ñaari kafe yu baax. ma pare sama tànk si table bureau bi naan tuuti ndox. waaw sant yàlla. <laughs> di ko di ko yor naa sama poche 300 waaye ndekki naa ba suur. di xaar mu rees léegi leen loolu bénéfice la. <laughs> am na koo xam ne tey fi ñu toll nii xam naa ne fu ko neex lay ndékkee tey. Euh, kilifa waaw parce que am na ñoo xam ne bi ñuy xëy. yi ñuy soloon ci fajar gi ak bi ñuy def si xalaas yi ñu sol ci émission bi bokkul Eh, eh, ak Mor la ñu indi. Ah! <coughs> ma sa ko ñuy ndekkee Coca Cola. mooy man maa ngi beñe. waaw oh. ah, yaa ma beñewee. Eh, sunguf meew comp. waaw as. maa ngi lu ma ko suukaree. waaw loolu te sant teel sant la waaju doon wax rek ku xëy di nga guux la ñuy guux a wuute rek waaw léegi nag dangay ngay tëju sa biir bureau nga guux li ngay guux waaw nga génn kenn xam mais da ngay génn di wan nit ñi naan Ababacar maa ngi lekk sama xaalis teraanga àdduna bët mais loolu teraanga àdduna jaay da nga koo jàpp na <laughs> sa kenn xew ma nga woon ca Espagne eh, wax dëgg yàlla ñu jox ko fa ab raaye bu am solo waaye kenn du ne guléet nag kan ci Youssou Ndour ah information la ab jaay déedéet Youssou de xam nga nag moom tawarkal la la mu wayoon moo tax ba seetlu naa ne Youssou Ndour nag carrière bi am na wayam yëpp tëggaat na ko ba mu des benn way. cappaa colli. ak tabaski. ba mu ko woyee ca jamono yàlla longtemps ya. Mhm. ca album ndar bi la ko reprendre loolu ay 98 99 la ba tey jii cappaa colli mosuma dégg fu ko Youssou Ndour tëgg. man ànduma ak yéen de. Youssou li mu wayoon te war ko wayaat muy liggéey. non wayaatu ko laa wax. cappaa colli. waaw wayaatu ko. waaw li mu waya li mu war a li mu wayoon war ko te mu xew léegi mu war ko wayaat léegi muy liggéey. mooy liggéey waaw. Ah. man de xam nga sama culture musicale yaatul waaye jëmmu mhm. ji. jëmmu ji. Mhm. jëmmi Youssou Ndour. Euh, fa ma ca yam man day ñaan Sénégal yëpp yam ci. Mhm. mooy di ko ñaanal mu gudd fan te wér. bi benn ñaar mooy am ci xippeek xool yi am ci foofu. ah yàlla Ababacar. Mm-hmm. boo ci bëggee noppal dangay am xippee xool ñun ñëpp ndefarum yàlla la. gis nga yàlla yi da cee defarum nga réew mi ñi fi nekk di wax. dana waroon fexe ba def ay ba def ni Youssou Ndour def. Hmm. xam nga waali fexe na ba defar ay waali hmm. ñoo ñu ñooñu toppandoo waale sàcc wuñu mhm. tuxunu yàmba fenunu dugguñ seen yoon nekk ni ngi sañse ak jéem a def nekk star ak ñi muy fay par weer ak ñi muy fay par ñii di nekk ci réew mi yore xaalis bi toog toog ci ay milliards dañoo def ni Youssou Ndour mhm. sañc ay kër yu jël ay juróomi téeméer ñi dinañ fay par weer bon naa malaa ñu koy def ñaar fukki at ak juróom fukki at comme ça ndaw ñi dinañ am fu nu jàpp réew mi dina soxla waaye yore yi milliards denc ko ci ay compte ca Malaisie di ndekkee ginaar di añee bay di reeree xar. di romb nit ñi di leen xool di leen sikki ak di leen ci cibbatu. ci milliards yoo moomul. ci yooyu loolu moom moo war a jeex ci réew mi. moomul sax nag. mais <laughs> naka moom ñi amatu milliard ba pare nag siñ ko fan waaw daal moom nga ne la waa jaaxal na la. en tout cas c'est exceptionnel. Ah. defaru suñu borom la. jël sa doom daal di koy may dimanche bi. yéeg avion wàcc lundi bi ñu honoré la. ay ah, yow Abba yow booy jënd booy dem bi euh, tukki da ngay jënd bi avion ah. da ngay dem ci agence ba fay sa xaalis jox la bii mhm. yu su kaar na la yor day xotti rek dem aéroport ah, <laughs> ah nga xam ne yàlla wóor nga xam ne yàlla bokkul ak gars yi pare na wallaay dëgg la tukkee la carte da yor carte na rek comme carte d'essence yooyu daan tapit rek ni ni nongo ale aéroport yal na yàlla defal ko jàmm te moom bu ñu roppee am du def yal na yàlla defal ko président yal na yàlla defal ko jàmm sant <laughs> yàlla waay yal na yàlla fii de fii de ku toog waaw euh, bu doon yoon yoon yoon bu ñu toogee balaa ñuy def xalaas ak lépp dañuy wax ci Youssou ba noppi comme comme ñu dañoo indépendant dañuy def lu nu saf waaye ku fi nekk yaa ngi di waxal koo xam defalu la dara ngay xëy di ko waxal yal na yàlla sàmm jàmm ñi daal te sàmm réew mi nañ dem jaay <laughs> léegi da ngay da ngay da ngay da nga ah, par nga si partenaires yi ba pare déedéet da nga koy da koy kii accéléré parce que fi ñu yemoon démb waaw ci affaire affaire affaire envoyé xaalis bi affaire ëmbalante bi. c'est important foofu. <laughs> donc accélérer nanu bari accélérer affaire yi. mu dem ci rapidement ci affaire bi affaire bi ëmbalante bi. <laughs> xalaas gi bu tollee ci partenariat tax. waaw accé danañu comprendre tey. nga dañoo toll ci jamonoy nawet. waaw ku ne nawet ne yoo. Mm-hmm. wallay wallay. te pour nga tàggoo ak ay yoo. da wuti cuuraayu bant dragon. bu saf xoolal damay dem RTS. <laughs> la tour à problème. non ma xam nga man. yow yéen ñëpp yi Sénégal yëpp nangu nañu ne man élément dormant RTS la. waaw dëgg la foofu de sa kër bàyyi la moom. am naa benn yaay xaalis RTS lañu. ndey ndey ndey booy da ngeen may neexal. waaw hmm. ma toog. Hmm. mun leen ko mën a leen wëng. dem RTS. RTS ñu mam ma ñu léegi nag mu des du ma fay defi ak ku ma fay fekki. ah ñoom maama ñoo ñu nga foofu ñoom maama Moussa Niang. waaw ak ñoom Louis Philippe Senghor. ak kii déedéet ki ñu directeur bi bu yàggul Euh, Pape maadi Pape non Pape Alé. Pape Alé Pape Alé mooy directeur général groupe ba waa RTS léegi ki mooy télé ba ki mooy directeur ba Pape Ma Pape Madi. waaw moo def directeur ba. am na keneen ku nu fal ca RTS RTS 1 ja rajo ba. man daal neexal leen ma bu ngeen bëggee ma toog Ndiaye toogal toogal yàlla na yàlla defal la élément dormant RTS la da ngay dégg ñu naan cellule dormant man élément dormant RTS waaye RTS amul xalaas de Ndiaye lu dem ci baat amul xalaas de waaye grand amul problème bi ko faa yóbbu de nga dem rek créé fa émission jommi jommet jommi jommet kay ah, doom xalaas ayam di doom ju ne tëbi nu bàyyi may rëq ndig fu ma tolloon ci dragon yaa ngi ci dragon ba nga xaat fi Ndiaye dragon xam nga lu tax dragon am solo ah. eh, jamono juñ toll nit ñi dañuy soxla dragon ndax bu fekkee ci jamono nawet la ñu nekk nga bëgg tàggoo ak ay yoo da ngay wuti ray bant dragon mm. da nga koy taal muy ray yooyu di la bàyyil xet gu neex nga nelaw ba foo dem ci réew mi boutique boo dugg marché boo dugg laajte leen cuuraayu bant dragon. no seerul seerul te accessible na. beneen bi ci topp mooy am na lu ñu naan frotté dragon. Mhm. moo mën ci yaram buy metti moo mën ci coono moo mën ci ku sonn ñoo di ko ci ñaari format am na format ice mooy bii sedd am na format boo xamante ne ji mooy frotté dragon normal moom it accessible partout am na yeneen yoo xamante ne ji am na ci marque gamme dragon dina leen ko leeral mais li ma leen 14 78 143 65 33 wala 77 513 69 61 ñu waxtaanee Optique Vision Plus Sénégal muy champion bu mag bi mën ci walu lunette fi ci réew lunettes euh, yu wër lunette yu bax bo dé wër lunette yu yomb wër original boy wër lunette yu garantie adresse bi ben la moy ci boutique Optique Vision Plus Sénégal yi yi nekk ci rewmi nak ndax fimné dañu daj rewmi machallah bo dar fekk nga dem Touba fa nga dem Thiès Louga. Euh, VDN bi Kër Mbay euh, Kër Mbay Fall fo ci mënti dem bu la aussi mën nga tok fi nga tok woo leen ñoom Optique Vision Plus Sénégal ci 33 821 54 57 wala 77 479 63 38 ma aller ak gamme universelle pousse nga xamné euh, gamme universelle pousse de air naturel. Hmm. muy gamme bu baax nak ci sa xel karaw mais également di dundal sa karaw gamme bu baax bu fekkente ne da nga bëgg yar sikkim kim amna huile barbe <coughs> Amna également lotion super active nga xamante ji dafa naturel faut dem ci rew man ko boutique yi produits cosmétiques bu la également man nga leen 70 336 05 53. 70 336 05 53 di leen suis bu baax ñom partenaires ñu ci fa ñu ma parce que na ji fimne rew me tak ba lu nga ko. la bo ji neena dañ doon tabaski mu dugg ci point orange monnaie 35000. Mm-hmm xalé bu jigéen bam fa fekk defal ko retrait mu dem kërëm gis ne guddi jot na mu ne suba ma soga a dem mars mhm. téléphone am fekk huit appels en absence. appels rappelé yam ci kiko don defal retrait bi. Mhm. ki nek ci point bi. Mhm. dama jop sa mu ko dama am sa sa non de. quoi <laughs> Zar, ko japp wa Gendar rek. mu ne. mu ko ko saa gàll naa la may ndaw sa gàll baay tere naa la may ndaw. léegi de temps boobu amatul noonu lañ doon euh, dragué. Ah, laa may ndaw dama bëgg dama bëgg dama la bëgg tippo ama la bëgg tippo. <laughs> Eh, eh, waaw d' naa bal ba tàkk na. Diène dama <laughs> euh, dama laa bëgg comme ni nga ko waxee.

six mois après xale bu jigéen bi woo ko ni ko euh, dama am boroom kër. nit ñi ah. dañuy foog ni euh, ci ci ginnaaw lu am borom kër. ndax li ñuy génn ñëpp ci biir yëpp am na ci borom kër. na borom kër te ñu ngi doon siin seen mari ngaañ. laaj ko mu ne ko parce que. kiñ ma waxal loolu. waaw waaw <laughs> waaw bu <laughs> ma may bëgguma ko. waaw te li mu yor baaxul. Mhm. demeewul noonu. dig ba bindul. waaw tey mbay. <laughs> léegi nag. waa tiit. waaw jaaxle dem naa tiit. ne ko léegi kan mooy sa boroom kër ah fii lañ ñemoon démb. la ñemoon démb. Serigne dafal jingal dafal jingal. dafal jingal yow. gis nga jaañ gis nga yow. da <laughs> ngaa beew. dinaa si la xam ne da ngaa neex. moo tax ngay tëb ay zone ak vendredi doo ñëw. damaa ndekki ba suur mais yow ku neex. nan <laughs> dem nan dem. <laughs> ma ne ko léegi yow kan mooy sa jëkkër. ndekete waaj yi nga xamante ne moo nekkoon ci place bi ci boppam waaj yi nekkoon ci place bi ci boppam kooku moo nekkoon jëkkëram. te waajur ja ma ko daan romb matin midi soir waajur ji ci boppam moo nekkoon ci këram ndax gel bi yàgg na may seet si may dégg ku koy woo naan kon yow foo nekk yaa ngi guddee doon ñibbisi ba ma ciy xuloo ma naan kon ah yow kon danga may trompé danga am beneen danga am beneen copain di ma trompé su waxee ne ma noo kii sama papa la sama papa moo may moo moo moo may woo yaa ngi comprendre noonu la noonu la noonu la problème bi mais man avertir nañ ma mais xale bu jigéen bi maanaam parce que bu ñëwee bu duggee sama gaale danga naan man seetuma tellement daf ma dépassé jëmmam maanaam ku ñëwoon ne la tey xale bu jigéen bi leen diw lay seet diw lay seet danga naan non non danga naan déedéet parce que tellement daf ma dépassé ah bu duggoon ci kër gi danga naan naru lay seet mais dafa am sama benn gannaaw bu nekkee woon à côté daf ko daan gis mu dugg ci kër gi tout le temps tout le temps mu woo mu ne ma xale jigéen bii nii kan lay seet mu ne xale jigéen bii man lay seet mu ne ma diw kii amul jëkkër ma ne ko non non amul jëkkër mais rek damay jàpp ne sama grand boobu moo ko soxoree wala ndara la xam mais sama grand moom avertir woon na ma mais man ba léegi xalaatuma ne xale bu jigéen bi dafa am dafa am jëkkër nii la problème bi demee depuis trois ans six mois maa ngi koy dund ci diggante bi nag xale jigéen bi ëmb na mënatu ma ko jot téléphone te doom bi man day mën naa waat ah ndax def nañ ko ay yooni yooni yoon te protégé wu ma xale jigéen boobu mënatu ma ko gis fenn mënatu ma ko teg fenn te li gën a ci loolu bi affaire yi amee ba fee am ma jóge onkaat côté onkaat di ñibbi may arrêté taxi pour war a dem sali, ndekete 207 bi ma arrêté jëkkat yi moo yor 207 boobu ma dugg ci biir xam ne moom sa jëkkër ji après bi ma koy fay paas di ko jox mu ne ma yow moom sama booy nga yow moom maa lay yóbbu ba sali nii loolu boobu léegi maa koy dund affaire bi métti ma lool léegi nag xamul ba xam ndax loolu lislaam man daan na ma ci waaw wala déet ndax man bëgg a xam ba xam ndax lislaam daan na ma ci lool wala déet ndax koo wax dana maan yow yaa ngi yàlla am ngeen règlement de compte koo wax loolu la lay wax anam jigéen bi depuis lool laa ko gëj a gis laa ko gëj a ba woo naa ko à multi reprise jotuma ko numéro bi ma ko woowee sax dafa dem ba numéro bi doxatul message naa ko dama dem ba man amatuma benn nouvelle u xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi ma ko gisoon taxawal ba ma di koo laaj ko kii dafa gëj a liggéey si lan ko dal kooku sax laaj naa ko numéro mu ne moom tamit da ko gëj a gis te ndax moom numéro bi mu am moom tamit doxatul loolu jaaxal na ma lol lol lol, lol lool te man wallahi jaral na ma ko fii ba deux mille cent trente di xaar bis bu ma ko tegee bët bis bu ko tegee dina génnee xale te xale bi bis bu ko man ñeme na teg sama loxo ci kaamel na ñeme na teg sama loxo ci kaamel ne man maa ko man maa ko jóg waaw parce que man ak moom nañ koo def duma ko duma la ko nëbb de man ak def nañ ko ay yooni yooni yooni yooni yooni yooni te li ci daan ëpp luñ ko daan def dimanche da daan ñëw sama gàlle fa la daan nekk 15 heures ba 20 heures dinaan nekk sama gàlle te dañ ci daan nekk rek dañ ci daan nekk man sans ma protéger wu moom tamit sans ma te li gën a garaaw premier jour bu may njëkk a fóonante ak moom ñu ngi taxaw ci suñu jardin bi noonu. xalaas xalaas ba daanu na. léegi de ndaw si mooy hmm. de A xamul mais li waa wax ci ñun ko ay championnat aller retour de points ñu dem <laughs> ñu dem final prolongation ñu def deuxième finale. la la, NBA de. mais mais ci biir waxam dégg nga muy laaj naan ndax l'islam da daan ci islam daan na ko ca njaaloo ja. ok waay waaye daanu ko ci tuddee jabaru jàmbur parce que xamul ni jabaru jàmbur la. dafa am si dafa am daa am différence. waaw nga tëddee ak ku nekkul sa soxna ak tëddee ak ku nekk. jabaru jàmbur boo ak ku benn la du benn de. bàkkaar la la war a rey de. déedéet dañu ni boroom kër. góor ak jigéen bu dee dafa dem njaaloo ci lislaam da nga ko war a rey. Hmm. bu dee musoo am jabar nga dem njaaloo dañ lay dóor téeméeri yar. Hmm? loolu mooy àtte bi moom nag gannaaw da doon dafa jàppoon dafay njaaloo ak ku am serviteur comme moom kon moom dañ ko war dóor téeméer ndax xamul jabar jàmbur tëdde bu nekkoon dafa tëddee jabar jàmparam mu tey ko dañu ne di jëlal paaka nga woo jabaru jëkkëru ki nga tëddee ngeen dem ba ca àll ba hmm. nga wax ko ne tëj naa sa jabar léegi paaka baa ngi nii soo may baal nga baal ma soo may rey nga rey ma su la reyee da ngay pett bu la baalee sa wërsëg hmm. loolu mooy diine ji hmm. waaw ah yow tam jaañ loolu bu amoon di nga gis ku rendi nit pare rendi boppam <laughs> alors dina wax loolu bu amoon di nga gis ku yóbbu ne ci àll ba jox ko paaka ne ko dama séq ak sa jabar waaw rey ma boo may rey nga baal ma boo ma dul baal nga baal ma nga rendi kooku pare rendi sa bopp rendi sa bopp maa la wax loolu mu nekkoon ca nga nekk yow waaw waaw waaw loolu moom kay turakal jëf ni grippe la rek grippe la rek ñi dañuy saxat ñi sa am yaram bu a wokk mais yow <laughs> yow comme exemple sama gars yi am soxna. waaw te nekk ci mbedd mi di def lu leen neex ñoom lan la islam wax ci ñoom. dañ la war a rey. chara ne boo amee jabar wala nga am jëkkër ñaar dañ la war a rey gas la suul. ki may ma café xanaa xamuloon ndox yi di wàcc ci kaw suuf ndoxu taw. suuf da koy gërëm ndoxu njaaloo suuf day rëbb ki ko sotti si kawam ba keroog ndox miy jeex. njaaloo musiba la de. waaw waaw. day tëj ay buntu day lëndëm la waaye ah, nag non loolu moom wér na waaye nag tabarkàlla mu li xam nga yàlla yi muy tere yëpp dafa neex <laughs> barke rasul <laughs> billahi walay të <laughs> waa léegi léegi ñu dem ci bi ci topp ay ay sawr la booy bi naan ko femme bi nee na euh, mu ngi say meeg fii mu nekk nii xolam sedd fa parce que waa ji mënul. nga tas dem moo tax jaañ lu waaye di mën na ko jëndee mën. barki rasul la mënul. waaw bàkkaar loolu nag jàpp naa ne. waaw femme bi moo tooñ waa ji. femme bee tooñ. femme moom mu ngi ci erreur moom. bi moo tooñ ko induire moom la quoi. moom la c'est vrai seytaane mën na ko bañ yegg fen fii. mais femme bi nag moo déclenché lépp. tooñ na waa ji tooñ na yàlla mhm. xeeblu na jëkkëram wallaay mu jaañ tuutal góor mi ngi jàkkaarloog ci nit di la xool xam ne man jabaru kii maa ci nekk mhm. <coughs> musiba ngay jaay fulla di fonki di hmm. neewi di wan ni laa toll jaay njàng mu bare diplôme yu sore oto bu rafet fekk ne yow c'est bien privé bien public la ci bien public la wallaay c'est c'est c'est euh, regrettable loolu mooy yàlla ñu ci yàlla musal li nga ne lu wut di jaay na ko jënd ak mën mhm. ah, mais aussi ñu yàlla di boole ak soxna yu baax soxna yi na leen yàlla di boole ak borom kër yu baax c'est très important boole ci ngor ci ngor mhm. te may na doole poos ak doole mm, am na solo loolu Aliou Sall laa dem koy wax Oustaz Aliou Sall mm. ñaan ko am maanaa yàlla yàlla may doole poos ak doole ndig mhm. c'est important bi ci topp xam naa bi ko war a dañu war a de bref yii de. moom la booy non moom la booy di wax ni na classe kenn dootul kaas man maay nekk ci internet yi. yaa yore dossier xam nga gars yi maa leen di xool. waaw nii seen xol yi sedd na. guy guy guy page bi lan la RFM la rajo RFM rajo RFM rajo RFM. partagé la ñu passe Facebook. rajo rajo RFM. damay dégg nga naan tapoté. ah mooy lan tapoté mooy nu laal ko. def ay kër moo tapoté ay noo xam naa baat bi. Ah. mais lu muy wuti ci réseaux sociaux mooy tapoté tapoté xamoo ko. nuñ koy defee. tapoté <laughs> ah mbete ku mës a tapoté léegi. non déet eh, nga ni waa déet xam nga Ababacar nag yow problème bi <laughs> mooy. da neex de. waa déet mais xam nga duñ na la ndaanaan rek xam nga bëgg ñoo sànq. mais da ngay jékki toog mel ku mës a tapoté yow non baatu tapoté xam naa ko. waaw lu muy def ci yii ngay ay ay ay ay Facebook yii ngay def nii luñ cee tapoté. léegi dinaa la ko wax. waaw mais ci kaw wax ma yoom mës ngaa tapoté waaw wala déet. ci lan. <laughs> lan lan. Ndiaye ñaaw njort. dafa bi yegg nga ne man ndax mës ngaa ivre. si c'est vraiment ivre de bonheur. d'accord naa mais boo demee ndax mës ngaa ivre yam ci. naan ba tërëf. ku nan naan ba tërëf damay laaj rek naa mos nga naan ba tërëf man mi mandi man mi waaw yàlla yu njaay mosoo mandi mukk ci àdduna yu njaay mosoo tux yamba mukk ci àdduna da nga naan café touba kese ngay naan waaw café touba moom sangu rek laa ci dul def yow doo njaaloo mukk ci àdduna di nga lekk kaani déedéet déedéet déedéet ah njaay yow xanaa yow tamit wali nga léegi nag dimbali ma rek euh, dimbali ma jaaj yi nga laaj njaay nii yëpp moo ci laaj benn dimbali ma rek non yow ma waaw suturaal ma rek yow xam nga yow bu bu amoon football ah. yow yaay yaay yaay yaay stoppeur may libéro na bokk ASC maak yow <laughs> <laughs> du ngeen bàyyi ma jox leen bii. lan nga ciy joxati fii toog nii xale yee doy xale yee li fi des yëpp dee ci ko ba suba tey li ngeen xaalisam day dem li nga leen li nga leen jox tey dafa doy xale yee doy xale yëpp xoolal internet yi. non Diagne kay leen jox. waaw waaw Diagne moom tey moom xoolal yaay lom di mars tey waaw. Ah, arde gulóor ñu ni toog. waaw ah. léegi ñuy def. bii di ñëw de temps bi di ñëw xalaas kii léegi mu ñëw bi. xale yéen i baax na. heure ñàgg léegi mu ñëw. xale yéen i na. naan le trio de choc. astafurlah. meilleur xalaas de l'année xale yi lu ne ñu ngi koy wax fi ñu toll nii te benn xalaas ak nga leen jox. yaay moo tax yenn saa yi nga yor lu bari du neex nga yor benn mu neex. ajab <laughs> laay.